Euh, Monsieur Diouf Khadim euh, ñu ngi lay nuyu di la dalal. jërëjëf. xam nañ ne jamono ji Touba euh, taalibe yëpp a ngi fa di waajal li nga xam ne mooy màggal bi fii léegi ay waxtu lan lañ mën a jàpp ci situation bi ndax nit ñaa ngi ñëw ak doole. waaw euh, soxna Elisabeth ñu ngi lay ziar bu euh, invitation bi di wax ne dëgg la actuellement depuis démb affluence bi bëri na lool ci dëkk bi vraiment ñëpp daal wuy si nañ appel bi ci wàllu màggal gi di doon mbégte mu doy nag si ñun xam ne rek sëñ Touba moom mbiram ca kaw ca kanam rek. Euh, lan lañ mën a jàpp ci euh, li nga xam ne mooy Covid bi ndax euh, seetlu ngeen ne am na lu mu wàññi torop ci ni màggal bi doon amee. changé wul dara changé wul dara au contraire affluence bi dafa yokk xam naa nag xëj na li ko waral mooy nit ñi dañ leen tëj tëj bu yàgg ñu gëj a dem ci ay donc bu amee opportunité bu mel nii dañ ci plongé. Euh, liy euh, spécifié un murit mooy ragaluta dee ngir dem ci sëriñam ragaluta dee ngir def ay devoiram donc euh, covid bi terewul pas-pas bi bokk taalibe yi dafa gën a yokk waaye terewul tamit le xalif général des mourides joxe ay consigne nee na ñëpp respecter les mesures barrières donte ne lu jafe la ndax yu mel nii mbooloo mi day bëri mais sëñ bi lépp lu mu ko ci waroon def na ko ci joxe na ay ndigal même résidence kenn du fa dugg te sa masque yoroo kon nag euh, loolu tamit taalibe yi war nañ ci gën a bàyyi xel gën a fexe respecter les mesures barrières ni ko sëñ bi euh, santaane mhm. tey jii ci mesure de waaw mais taalibe yi ñu ñu ngi ñu bu baax sax waaye nag daf ci am loo xam ne mhm. euh, souvent mën naa bañ doon lu yomb mën nañ ko négliger waaw léeg nit mën naa takk masam dem ba ci yàgg boo boo bëgg a def dara rek jëndi ko yooyu yooyu daf ciy am mhm. waaye nag moom nit ñi foog ñu leen fàttali rek fu ñu toll di leen fàttali loolu daal moo ci moo ci ëpp solo. ren particularité màggal bi euh, ndax mën ngeen màggal gi moom euh, li ñuy war a gën a mën a seetlu ci màggal gi mooy ci condition Covid la. Mhm. màggal bi ci la amee. Mhm. waaye gis nañ ne ci la doole ji gën a gën a yokk donte ne yu bëri yu daan def dindi nañ ko plateau yi daan def ci yotu jumaa jeeg yëpp dindi nañ ko écran géant yi ñu fa daan def dindi nañ ko donc di nga gis ne y a une sobriété ci wàllu doxalin bi waaye terewul moom en masse mbooloo mi ñëw nañ. ñuy laam-laame ni cérémonie officielle bi du am ren lan la mën a jàpp ci mbir mi. waaw loolu mooy nouvelle yi ñu maanaam cérémonie officielle bi peut être même bu dee am it peut être format ba mu daan am ak euh, bu ren bi dana am changement dana am changement loolu yëpp di wane rek taxawaayu sëriñ mu taxal piir ngir bëgg sàmmonte ak euh, li nga xam ne mooy mooy mooy mooy wàllu mesure barière yi nga xam ne moom la santaane. ñu gis ne événement maanaam chaque màggal euh, nit ñi dañuy gën di yokk waaye du tee jafe-jafe ndox yi saa su nekk day gën di répété lan mooy problème bi waa xam nga Touba a un réseau hydraulique vétuste Touba ñi nga xam ne ñoo yore ndox mi moo xam OFOR la moo xam Maawu Rahmati capacité yi dëgg dëgg dëgg pour gérer ndox mi amuñ ko capacité gérer ndox mi dëgg dëgg amuñu ko waaw bu ñu waxantee rek amuñu doole ci des fois c'est Touba ca kanam qui vient en appui ñooñu bu ñu amutee ay pompe moo ñëw jënd ko donc loolu nag mooy jafe-jafe bi parce que du première fois muy am màggal yu weesu yëpp da ngay gis ne bu egsee rek ñoom dañu am jafe-jafe pour gérer ndox mi loolu nag problème problème gestion la problème gestion la ngeen ciy jox. waaw baaraam tuuma ñan. non ñi ko yor rek. nit da ngay nangoo assumer ses responsabilités OFOR ak Maawu ñoo yor ndoxum Touba. Mhm. donc peut être am hydraulique rôle bu mu ciy mais ce qui est mooy ndox mi moom acteur yi ko yor ñooy responsable premier yi. waaw mais da ngeen ci annoncé plainte luy dëgg ci mbir mi. waa xam nga Touba ca kanam moom li ci ëpp solo mooy euh, moom laale laalewut ci ci wàllu ndox mi. Mhm. dañ ko cee jiiñ ne moom moo ay travaux que ñun suñu suñu travaux eggut foofu mm-hmm. Touba ca kanam ñoom dañuy am jafe-jafe moom mu ñëw dimbali leen si mm-hmm. lu mel noonu nag su amee day day day day jaadu ñu ñu démentir ko dindi ko loolu moo ci nekk kon da ngeen ah, démentir plainte bu ñuy ñi di laam mais du dara du ci dëgg déedéet loolu je ne veux pas bëgguma plainte waaw waaw waaw bëgguma bëgguma bëgguma ci sori trop parce que ñun euh, li ci ëpp solo mooy nous œuvrons tous pour le développement de la cité religieuse donc ci am solo mooy ku ñu wax loo ñu warta wax danañ ko teggi ba mu set wicc mm-hmm. waaw loolu moom moom moom danañ ko def tey jii la ah. ngeen andi comme solution yéen waa Touba ci kanam comme yaa ngi koy wax euh, ci construction yeeg lan ngeen andi comme solution pour problème ndox mën a jeex ci Touba ndax chaque année euh, événement bi dañ koy xaarandi waaw ndox mi solution yi ci indi bëri na ñu ngi def ay adduction d'eau Mhm. adduction d'eau mooy fi amutoon ndox nga fexe ba xëcc tuyau yi ba mu egg si foofu mhm. ci liggéeyu Touba ca kanam sancaan yi la gën a concentré ñi gën a néew doole les couches les plus vulnérables ñooñu la Touba ca kanam di gën di jàppale ñooñu fexe ba xëccal leen ndox mi ba bay si ñoom tuyau yi ba bay si ñoom mhm. léegi nag dafa am solution yoo xam ne même boo ko yoree ci denkuñ la yëf yi téyewoo ko mënoo koo génne li ngay mën mooy ànd ak ñi ko yor di a yemagum nañ ci ay ay xam-xam yoo xam ne def nañ ci ay étude euh, de manière globale pour xool lu ñuy def ba ndox mi réglé wu. Mm-hmm. donc loolu ñu ngi ciy ñu ngi ciy def ay jàngat yu rëy incha allah di xaar ba le moment propice pour ñu gën a apporter yeneen solution mais ñu ngi ciy def liggéey bu rëy li ñu jënd ci ay pompe rek kenn xamul nu mu toll dépassé na cent millions yoo xam ne dañ koy def pour bërëb yi nga xam ne forage yi day paan ñun ñooy jënd pompe yi mm-hmm. kon ñun am na ay solution yoo xam ne lu nit di teg ci bët la du waxu le temps ñu ngi ci wax tamit euh, ci problème infrastructure jiitu réew mi am na ay réalisation yi nga xam ne diggoon na ko Touba mais ba tey dafa mel ni ville baa ngi xaar lan moo ci seen xalaat. waaw li ci suñu xalaat mooy état moom li ko war bëri na réew mi yëpp la war a defal. ay promesse nag bu fekkee ne euh, le président de la république moo ko def xanaa di xaar rek mu réaliser ko waaye ñun moom ni ñu xam ba xam ko mooy xaaruñu état ci dara saa suñu xëyee suñu yitte mooy fexe ba wàññi jafe-jafe askan bi mm-hmm. loolu daal mooy suñu yitte. ñu wax ci euh, ouvrier yooyu nga xam ne euh, seen ñàkkoon nañ seen bakkan ci yenn chantier yi nga xam ne ñoo ngi doon waajal màggal bi. Euh, tey jii euh, fan ngeen toll ci avancement dossier yooyu. ay dossiers yu avancé ak foofu. Mm. loolu day arrivé ci travaux bu ci ne day am mm-hmm. foo des accidents day am accident de travail fu ne xam na ko mm-hmm. ba mu amee tamit euh, mesures yi ci Touba ci kanam waroon a jël jël na ko bien avant bien avant que accident bi di yooyu di am tamit li ñu waroon ci ci wàllu norme de sécurité yëpp Touba ci kanam def def na ko mais nag bu éboulement amee loolu yooyu moom fekkuñu ci dara noonu la demee woon heureusement ba famille yi nga xam ne ñoom la loolu daloon tamit Touba ci kanam euh, la mu waroon ñoom def na ko mm-hmm. euh, lépp daal génnul Touba ca kanam waa Touba kanam la nañ ko et puis vraiment ñu ngi avancé. Euh, Touba ca kanam lan la apportel euh, ba kuréel bi euh, sañkee ba tey lan la apportel diwaan bi. bëri na waaw dégg dégg dégg bi xaw na kii euh, mais ni mu apporté dëkk bi bëri na ci fànn yu bëri. Mhm. ci wàllu éducation. parce que gis nañ ne waa gis nañ ne Mbacké moo gën a doté wu d' infrastructure que Touba euh, donc rawatina sax ay poste de santé ak yooyu donc infrastructure sanitaire euh, ñu bëri dañ daan jóge Touba di dem di faju ji Mbacké tey ji ñi ñaa ngi wax sax ndax duñu boole li nga xam ne moom mooy lépp lu ñu bokk parce que ñaari diwaan yi mën nañoo ne benn la tey ji ndax Touba. a euh, mën na demal boppam ci lépp. mais bien sûr. Mm-hmm. Touba vraiment boo xoolee pyramide sanitaire bi. Touba hôpital de niveau niveau bi mu yor amul Mbàkke Matlabul ni ñu bëri dañuy jógee ci dëkk yu bëri ci ci réew mi di fi ñëw. Mm-hmm. kon amul ci wàllu santé lu Touba di jëgaane ci Mbàkke c'est l'inverse li ñu li ñu kay mooy peut am nañ gabu cent postes de santé. Euh, te structure yooyu nit ñi ña seen ñàkk xam mooy tax ñuy dem ci hôpital de niveau deux di bàyyi poste santé nga xam ne day coono yi day métti ci ñoom ci garab yeeg ordonnance yeeg yooyu. Mm-hmm. Touba ca kanam nag ba mu xamee loolu ci la atelier wu di def ay poste de santé fi mu toll nii ñu ngi ci six poste de santé yoo xam ne ñoo koy réaliser. Mm-hmm. donc kon Touba kanam liggéey na ci wàllu santé bi. kon bokk na ci seen réalisation poste bu Lansar bi. waaw Lansar déjà fonctionnel na. tabax nañ bëreel tabax nañ Kër Gol Daaru Xadim Ndaam Touba Njaareem hmm. yooyu yëpp Touba ca kanam moo moo ko def pour rek wàññi jafe-jafe askan bi ci wàllu santé. Hmm. sànq wax nañ ko muy digge yi ñu dellu waat ci état li nga xam ne mooy yoon yi euh, mës ngeen euh, ci ay jamono euh, tirer la sonnette d'alarme ci wax ci état li nga xam ne moom mooy yoonu ville Touba tey jii ndax da ngeen cee apporter ay solution non xam nga mbirum yoon yi du lu yomb. Hmm. ñu ngi ciy def nag liñ ci mën ñu ngi ciy indi ay solution hmm. parce que euh, ren ñu ngi ci six kilomètres de piste. Hmm. ci zone yu yu yu bëri yoo xam ne nii fu mel ni euh, Kër ñaan tabax nañ fa un kilomètre deux cent. Euh, fu mel ni Saxew ga deux kilomètres deux kilomètres fu mel ni yoonu Daaru. ak ay kër baylaat zone yu bëri daal plus de six kilomètres tabax nañ ko de piste loolu nag buñ ko bàyyiwul dinañ dem ba dina wàññeeku bu baax a baax jafe-jafe yi ci wàllu yoon yi dina wàññeeku. tey jii appel ngeen di lancé ci màggalu Touba euh, Touba nga xam ne dina accueillir euh, ay junni junni junni wala sax ay millions yi fidèles ñi nga xam ne dañuy bàyyeekoo fu ne ñëw. waaw euh, liñ leen di lancé comme appel rek mooy. nañu bàyyi xel ndigal li sëñ Muntaxa joxe ci mas bi mesure barrière yi nañ ci jéem a waslu ak ngir ndigal bi sañ bi joxe loolu daal ñu ngi koy bàyyiloo xel ñëpp. mais ndax foog ngeen ne dina yomb. non mën naa mën naa mën naa yomb mën naa jafe mais l' essentiel mooy nañ jéem rek nañ jéem rek. tey jii balaa ñoo jeexal balaa ñu laa bàyyi seen i fonds nan ngeen koy récolter. mais ay bloc de reçu la ak ay carte de membre yu ñuy ventiler bu ko defee collecteurs yi di ko di ko di ko jaay. Mm-hmm. loolu mooy suñu fond de caisse ci la ñuy doxee. seen expansion tey jii fan ak fan ak fan ngeen nekk parce que gis naa. au niveau ca kanam au niveau international ak yooyu. si au niveau de la diaspora ñu ngi ci soixante cinq pays. au niveau national moom couvrir nañ territoire bi yëpp c'est ça. donc ñu avancé na daal am na vraiment yaatu na. chaque année dañ daan gis ñi nga xam ne dañuy jóge dëkk ba dëkk ñëw Sénégal ngir màggal euh, tey euh, avant màggal bi gis nañ décision Union européenne ne dafay fermer ay frontières am tey jii loolu lan la def. Euh, ci yow. ah en ñun de ci li ñuy yëg présentement ak ni dëkk bi xate a ah, kon de muñ ñu tijji woon frontière yi dana dana gën a doy waar <laughs> waaye nag euh, nañ xam ne Sénégal ab république yeneen dëkk yi ay naataangoom lañ mu war a respecter seeni loi ak seeni charte kon ki nga xam ne ab taalibe murit la fépp mu nekk ci àdduna bi mën na faa célébrer màggal gi waaye nag nañu jox cër ku ci ne dëkk ba nga nekk loi yam tëral nangul ko ko. merci beaucoup monsieur Diouf. ok merci beaucoup.